maa ngi nii xanaa mu lay. maa ngi nii rek kóor waaw. waaw kon du la xeeb. ci loo nekk. xanaa yéen a ngi def saa nekk de. yow moom toujours da ngaa sonn mosoo fee ñëw rek a sonn moo yow. yow dayal neexul ci nga dëkk. maa ngi nii filaala rek. saa nekk filaala ba xëy na. war naa xam temps yi ku ne. kër yi yow. xale bi nga xam ne daf may tënk ca kaw ma te dama gaañu. la barki ma yor wéro yéen a ngi koy jiiñante de. man ni ma ne ma ne ko ay caaxaan. ah waaw man ñoo war a war nag ki nga ki lay tël ma xool ko mu doon. xam nga saa su ma yeewoo damay xool ay image am sama xol dinaa waaw. léegi jàpp na laa la yëgal bàyyi la dugg ci fees yi di jël sama yëf yow yow yow kii yow jom bi sama alal la de yow wér nga yow bi sama copain la yow. waaw kii nii nga. yéen ñee nag nekkuñ ci mois d' avril nag kii sama flan de cœur mii ki nga xam ne man lay wër ba guddi jot mu dem tëdd. yow da ngaa xoolal sa bopp bi nga bëri caaxaan ngeen indi man tafuma. kii nga xamante ne xoolal démb la jógee suñu kër xale na ndawaani sax saa saa la leen doon def. fii daal ñetti xale daal la fi doxaandoo dëkk baa ngi nii dafa toj. moo ko indi léegi léegi si buntu kër gi léegi ma wàcc. waaw doxal ñetti xale kii moom faa ñu tiñal ko moom. kon yow caaxaan nga. waaye damaa xamee ay caaxaan te seen dëgg ngeen nekk. ma ne la nekkul ci mois d'avril. dara ku koy tëjal ku dul man day wax. da ngeen a énervé wu xaar leen ma may leen ndox. ngeen naan parce que ñu nekkoo leen fi. musuma nekkoo leen fi defate nga bu bees. benn la génne dëkk bi. wante yow tamit kenn demoon nga des yéen ñaar da ngeen di génn. yow nag jaaxaloon nooy génn rek mbëkk la say bañ war. suuf leneen. ah ndax nga la. doxaan ñetti xarit. waaw fii la bët yam. doxaanu leen man mii lay doxaan. waaw mu sotti. mu sotti. yooyu. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yow xam nga la Kaja man photo ma de damaa yor ay photo yu bëri nga may indi ay photographe nañ la jël problème kuy doxaat ñetti xarit. dafa war a def dama leen di présenter sama carillon pël bu rafet. puissance ça va. yaa jàmm pël bu rafet. ça xanaa sa copain kay booy génn moom boo ko gisee. war ngaa daw man koo akolaat maa nga xool ko. Hmm, lu xew noonu. carillon wu ngi nii da nga xam yaa ngi. ma xool leen. yow tournel kii xool na. ah kër yi hmm, ok non kii xool na de moo ok. kër bu rafet sama kër yi ñoo xool. ça va ça va ça ñii ngeen di génn. génnu lan. waaye lii nii ngeen bëgg a jàppee seen àdduna yéen di wër di fenn di kàcc kër gu ngeen dem tas di kàcc ñii ngeen di yàq seen kóob ñii ngeen di yàq seen i diggante mais yéen lii ba seen jàmm la. boo pare yéen seen Facebook yi seen WhatsApp yi man dama jaaxle léegi ci Sénégal quoi jël ay photo star di ko fa affiché diw sama xarit la diw sama far la diw ànd nañ fii jokkoo nañ fii dem nañu auberge nii lii maa seen jàmm la di wër di fen rek ah wala léegi mot la ci réew mi wala lii feebar la ci yéen yéen ay jigéen ngeen jigéen war a am ay doom te seen doom yi dañoo war a roy ci yéen mi wër di fen di kàcc kër gu ngeen dugg rek bu koo tas jóg leen waa yéen non attends balaa ngeen di jóg xaar leen sax yéen. waaw ma leen. nga publier ko. xaaral baax a baax. réew mi damay wër di foto la yéen ñëpp laay wër di foto duggal leen ci internet bi El Vision laa di yóbbu ñun ñëpp gis leen. yéen dama leen a bëgg a may bës da ngeen di siiw ak Elvision. sama verre yaay ñu ngi koy takk nag tekkil verre yi. dama foto na tekki verre yi de nga foto comme ça ñëpp xam ne moom la. dimbal moo tax France jaarale dimbal. moom bis jaar nooy moytoo. indi verre moo tax France jaarale waaw suturaal. naan suturaal. gëstu bi ma ne eh la siggi de chéri la siggi. xool ma. waaw moo tax France xool ma fii xool ma xoolaat ma. waaw mooy France jaarale dimbali ma. waaw dimbali ma gàtt kalaas. ko ko defati. Eh, eh, eh, xool ma fi dama allé si photo. mu naan dama allé si photo. dama allé si photo dimbali ma nga naan mooy. dañuy siiw ne xool. Mbis Diar nooy moytoo. xool ma yow ak El Vision. bu mu jëm côté waxtaan rek jàpp. xool ma waay photo bi baaxul yow. dimbali ma rek. ok jóg leen. ñàkk classe. jóg leen. góor di fer rek xoolal yéen di ngeen di fayeeku ci fen bi sanksi yi ngeen di sanksi yi fu ngeen ko jëlee. somebody su ma diggante ak yéen nag avorté na it.